pakai karo gade bata yongo yogwa nagate aro gayarne pakai karo gade bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy samay abonné aw ma seen fay waaye tey nag ñu ngi bisu Mbéwane production bisu Ibra Diouf muy le 30 grand combat bi war a dox ci diggante ki nga xamante ne mooy caatuwaalo ak grand mañit waaye nag dañ leen di toppal action bay national ndeysaan bu fi ama ñu eh, ma ngi lay ziar bu ama nuyu nañ la soo nekk mais tey ñoo ñëwee daa mel ni confiance la ñëwee de non ndam rek sa supporter keroog daa daw ci kii bi sax eh, ki ngay bëre daa daw keroog ci suñu signature non li ma la waxoon keroog ci signature bi rek dañ maa yëpp ma ci bokkee dañoo bari coono yi moo bari ci dugaguñ lam ñun bu dëkkee guñ yàlla ñu yàlla may jàmm daa bu daa bu suñu la zone mu daan la wala bëri nekk fu mu nekk ma sax si kaw ah, waaw ah ah ay kon baax ay nees nuyu nañ la lees doomu rëbës. waaw gis nga maa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm bu baax. tey yaa ngi am seen si ñëw. waaw mais dara du ma daan rek. doomu tëngeej. waaw nee na da lay delloo rëbës. day sóob rek. ah boo ko jàppee day jeex. ah boo ko jàppee laa ma jeex. waaw kon ci kanam. ayca ba tey ñoo ngi nii. laay lay la laa kaala baasa ñu noonu. noonu a ah, eh, waaw Kaana li nga diw lii lii dama am sama benn kii bu baax bu ne fii. Ah. waaw bu la ko jox. Kaana tey loo ñëwee. billaahi doole ju bëri laa andi. Ah, barki Seydina Mohamed waa Cambérène ñëpp dañoo jóg ñëw. waaw lii lépp mën a. andiwu fi dara. tey kay gis nañ yàlla mën la àndal. tey ah barki Seydina Mohamed. kon ci kanam lépp di. jël bu rëy bu gaaw. Ah. ma saa ñu dem. seet nuyu naa la. sant naa la dafa leer maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla dafa leer waxal ak man. maa waa di ko nga nangoo lal. ànd ak dal maam la. xam ni bés bi laaj ñu jox koko ko. bés bi laajul waaye di benn yoon. No dal tek waaw tay ci kanam touti nga ñew ma wax la ah. ci kanam touti nga ñew ma wax la ñii la lay lay lay la bay mas bay mas xale bi dina mbolo he bay mas caatu bigin baangi ni waaw waaw waaw na na ma ngi rek islam ma ngi sant yàlla bu baax da ngaa ñëwee ma dañ nga waa ginnaaw dañ maa yëpp waa Pikine yëpp yëpp ma ak waa Tuubaa pour waa Kër Massar xam nga waa géej waay billaahi waaw tey dama ñëw dal tey xam nga ban dugg si géej gi waaw horaire naa jëlante moom lu gars yi mais nan nga la dugal ci horaire bi wala yaa ko dugal ci non horaire ay problème ay problème dañoo crevé ba mu duggee si ma laay problème crevé waaw si kattanu yàlla naa ko daan jël bu rëy incha allah rabi waaw si bi bëpp na la incha allah bëgg naa la waaw ndam rek ñaan waaw di ñaan waa Guinaar yëpp ñu ñaanal ma ndam waaw loolu la saako ñaan incha allah rabi rabi gën na ñaanal ñaanal dinañu mën ndam bu baax a baax non jàpp bëre tànn ñibbi rek ah. amul lan la ñuy xaar bak Seydina Muhammad bu baax ñu ñàkk eh. yéen a guy foo ah. moom ko sama du say loxo comme eh. duma ko ba pare da koy daan ah. yaa ngi après nga waxal ci kanam ayca matu ayca matu. Teyar yaa xam teyar yaa xam teyar yaa xam waaye tey loo indi. Modou du doy war laa indi tey barke yonent bi ah. waa Dakar tey la ñu xam kan mooy Omo Junior ah, ah. waa waa Dakar tey la xam kan mooy Omo Junior te du gis nga lii lancement la rek lii dëkk fii mooy dàq téeméeri junne maa la wax loolu arbitre bi soufflé damay dox ci kawam jàpp ko daan maa ko mun maa ko daan ko bëri barke yonent lépp la ñuy def eh. ci yoon bi. maa ngi sant yàlla maa ngi ci jàmm. waaw alhamdulilah allah. kon ni ñu yebe rek kon ni ñu daan yebe suñu bopp rek. ñëw ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñu daan ñu. mais dina xeex. bon nit ñi xeex. def ni ñu ko daw mi rek. Eh. ko woon ko woon na woon ko woon. waaw ah. eh, kon baax na <laughs> Aïcha Tidiane Faye numéro 2. ba lan moo ci yu ma ne rek loo tax ñëwoo. est ce que koy daw ay mystique. après bu arbitre bi soufflé la ne xam ku doon daw. ah incha allah arbitre bi soufflé dina leer arbitre ah. bi soufflé dina leer incha waaw. la woon fa woon rek incha ah. waaw ndox ndox du bàyyi yoonam lépp mën naa am. Eh, wallaay ndeysaan lépp mën naa. kon ñu xaar lépp. lépp mën naa la ah. xaar lépp pare na lépp. Ah. wallaay pare na lépp ci kanam. ci kanam deux mille baax na kon ci kanam. waaye nee naa la sàngo maa rek noonu. eh sàngoo ñu noonu. sàngo maa rek noonu. yaa ma ziar naa la gaa waaw maa si jàmm mais sangu teel ngaa simee premier combat lah waaw xam nga waroo jaay benn mooy loolu sa adversaire di la waaw mais dañuy ñaan leen rek xam nga yàlla suturaal ñu uh-huh. premier combat sama premier combat yaa ngi koy ibu xel bu baax a baax bu baax Ibo nekk sa ginnaaw Ibo nuyu naa waaw ibu ma tudd naka mu nice naka waa dëkk ba waaw ñu ngi fa ñu si jàmm di ko ñaanal sa borom defal ko ndam rek def nañ lu ñu war a def lépp des nañ ko bàyyi suñu loxo suñu borom rek xam nga di ñaan yàlla sa borom defal ko ndam ci dooley ñoojoor ci barki ñoojoor waaw barki maam Seex boña mënu ma laa sax wax barki maam Seex tey sama xol dafa tooy ñaari laamu laa amatu di ñaan yàlla suñu borom mu suturaal ñu may ñu ndam barki maam Seex Fall bu duggee kër Mbay Fall ak ndam yi neex dooley maam Seex Fall te day am waaw maa la wax loolu di la jox rendez-vous le 13 incha allah ñëw Kër Mbaye Fall ñu waxtaanee ko c'est. Junior billaahi ndax li ma xool xanaa ànd ak samay rek. di ñaan yàlla ni dara teewul may ñu ndam. Ah. gisoo man ñii maa leen tax a jóg ñii billaahi xoolal ñii ñii ñëpp maa leen tax a ñii ñëpp maa leen tax a jóg. Ah. parce que yàlla ñu déplacé wu man. kon man aw ma seen fay. xam nga nit bu la rek da nga koy yëg xam nga bu la yëgee da nga di ñaan yàlla mi dara teewul xamante ni moom moom ndam billahi mu mañu ndam mu seddu guuy ci barki sey man musuma bëre combat yu yomb motax ñaanuma combat yu yomb comprendre man lu gëna metti gëna baax ci la gëna gëna sawar ci la gëna mëna def limay def bar yalla lepp xaj door mu daan japp daan mbot yeen billahi lepp dañu ñaan mi dara teewul may ñu ndam ndax da man xam rek eh. eh. eh. iya, ya, ya. man du dara man suma joge man duma ngebo fi yeb village ay ngebo doga jëw fi ni di ñaan ne ño xamantene yalla may na doole ñu dimbal ñu quoi ñun suñu problème na rek xoolal ku ñuy jàppale ci tigga yi ak billaahi ak oto bi barki yàlla ci tigga yi ak ci oto yi ñu ci mën di jàppale nekk ñun xoolal ñun ñoo lay sant li nga maa ngi ñu si jot a jàpp am na ñu si jàpp monsieur Ibrahima Ciss jàpp na ci Antoine jàpp na ci kii Moussa Daniel jàpp na ci ak ñeneen ak ñeneen di dégg nag sama waa gaale aw ma seen fay billaahi wallaahi taala aadama ngi fi dëpp ba bët ji lekkul naanu di dégg sama waa gaal di dégg sama yaay billaahi su may génn chaque jour dañuy jooy xam nga te neexul mënu ma wax lépp moo tax man chaque jour may ñefe rek pour ñu kontaan di ñaan yàlla ma ñu léegi léegi. bientôt. boo ñëwee nuyu naa la. fay naa la maa ngi ci jàmm. maa ngi ci mais tey dafa mel ni ban nga ñëwee de. waaw noonu la demee loolu la laamu ji laaj. ah tey loolu la laaj. loolu la laamu ji laaj. ah mais dafa ne jiw naa ko léegi. nee na tey jii laamu ji bakkanam la ci def. lu mu laaj rek da koy def. lu mu ko jaral ci kàttanu yàlla. jaral na ma lu ko raw. mu defe naa booy wax ba bés bi teew da nga war a jëf. instant ci jëf lañ toll ajo wu ñuy wax ci kanam lépp dina leer incha allah rabi. lépp mën naa am man damay xeex damay bëre te ci kàttanu yàlla làmb ji xam naa ko muy jeexee nañ dem ba ci kanam rek. Ah, waaw fay naa la yàqu ñu sant bu baax a baax alhamdulilah ah ñëw rek fas yéene xoolal corrigé li ma juumoon rek xam nga erreur mën ta ñàkk erreur mooy def nit mbër mais yaay booy tey damaa neneen ah. dafa leer dina xam ne affaire du wax si kanam tuuti dina leer eh. waaw boo xam ful ful la am domoon eh. loolu séeréer ya ko xam yaay booy ah. si kanam dina leer waaw laajal lool séeréer yaay booy waaw si kanam la eh, loolu du yomb ayca doomi looloo gi noonu c'est doomu loolu nuyu naa la. maa ngi ci jàmm dal nga dal mooy yoon dañuy dalal baax bi suba yàlla gën a xam ñu jàpp daal incha allah yàlla yàlla defal ndam seen dugub. waaw loolu la ñun day bëri ay xool ñu may àndal rek. mais dégg naa ñu wax la ni ne da ngaa ay ci ay ñoom. toog te baal ma bisimilah la la koy confirmer li ma ko doon wax de wax ay wax yooyu mais après lay leer maa fii ci kanam incha allah. incha allah bilaa wala ci kanam waaw. kon xeex xeex day am bëre day am. bi la maa la waaw kon ci kanam. ci waaw. fay nañ la ci ngi am champion. waaw kon nuñ ko doon rek. waaw ñu mom suñu xel dal na si moom ndax chaque jour ñu ngi si liggéey bi. waaw te moom jàmbaar la quoi. champion kan ñu ngi koy ñaanal ndam lu seddu guy ak Bamba. ak Zonia waaw ñetti booy laa fi indi. mais yow ci loo ne. waaye sant yàlla bu baax. taxaw na taxaw na. Ah, waaw le 12 février maa ngi bu waalo. incha fii la arène nationale. ma ñëwee ñu xam ne tas ñëw waaw noonu la defal lool. maa lay xaar ay ca tas la. siyaar naa la waaye yaa ngi ci jàmm. naa si ñëwee waaw ñëpp nga fa di leen nuyu rek ñëpp nga fa waa Bawol teeg ànd waa Bawol rek combat bi lu mu laaj rek rabbi incha allah. non lu ne mën naa am lu lépp la ñuy préparé. kon ci kanam. waaw ci bi ci kanam la. Ah. maa